ci seen mission bi ñu nekk te muy sàmm kaaraangey nit ñi ak seen alal ndaw yi commissariat central bu Kolda bi daal di daaneel ab band way defkatu ñawteef bu toll ci juróomi nit ci juróomi nit ñooñee nag mën nañ ci ràññeele ab guinéen ak benn étudiant way defkatu ñaawteef yi nag doon yëngu ci wàllum trafic de faux billets maanaam di defar ay billets yu baaxul di ko dugalaat ci marché bi ngir di ko mën di weccax ginnaaw bi ndaw yi commissaire Sall yi amee information ci ni am na ñu nekk ci dëkk boobu di koldaa di yëngu ci wàllum trafic de faux ci la ñu daal di tàmbali seeni investigation ba daal di jàpp ci benn waay bu bokk ci band boobale ginnaaw bi ñu ko arrêté daal di koy laaj ci la waa yi daal di nangu ni moom day yëngu ci mbir moomu waaye it daal di nangu yóbbu leen ci appartement bi nga xam ni ñoom fa la ñu féete. ci la policiers yi daal di jiital waa ji daal di koy yóbbu ci appartement bi ñu ne. daal di fay bett yeneen ñeenti nit ñoo xam ni ci wàllu woowu it la ñuy yëngu. ginnaaw loolu ci la ndaw yi commissariat central bu Kolda bi daal di fuye kër gi. daal di fay génne lu tolloog dix neuf millions ci billet noir ak lu tolloog un million sept cent quatre vingt mille ci xaalis bu baax. waaye it daal di fay génne benn sachet détergent ak lu toll ci six téléphones Android ak benn téléphone simple. waaye ak ñaari carte Wave ak ñetti carte d'identité nationale. ak benn paquetu cigarette ak benn permis de conduire. fekk nañu it ci appartement bi benn ficelle bu chanvre indien. ak benn pot bu def mercure. ak benn paaka ak benn ciseau. ak ñaari rouleau col scotch waaye ak benn moto scooter ginnaaw bi ñu leen tegee loxo nag ñoom juróom ñi ñëpp daal di nañu nangu ni ñoom kat ci lii lañ doon yëngu loolu waxal la ñu daal leen di defeere ci parke bu Kolda li ñu leen di toppe di mbooloo mu dajaloo di def ay ñaawteef waaye it di jëfandikoo lii di chanvre indien waaye tamit di defar ay faux billets ngir mën koo génne ci marché bi di ko wecceeku liggéey bu rafet bi nag ñi ko def di ndaw yi nekk ci commissariat central bu Kolda ci njiital commissaire la jox Sall